jox ko rek.
ay jazakumullah xayran kon ñu ngi jox Oustaz Ousmane mu gaaral ñu ci tënk ji nii rek ci wàllu problème yi nga xam ne moom la gis ci ci sëy yi ak lan moo ko waral.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبلغ الوحيد جل ثناؤه وأشهد أن محمد عبده ورسوله أشهد بأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأخرجها من الظلمات الشرك وضلال إلى نور الإيمان والهدى وانتقل من هذه الحياة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون والمستمعات نحييكم بتحية الإسلام تحية من أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñoo ngi sant suñu borom subhanahu wa taala di julli ci yanantam di yëkkati nuyoo te mooy jàmmi yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla ne kenn ku nekk ci ñun moo xam mag la moo xam ndaw la moo xam góor la moo xam jigéen la di ñaanal oustaz mi nga xam ne moo ubbi waxtaan bi yàlla nañ ko yàlla sàmmal yàlla nañ ko yàlla sàmmal dëgëral ko dundal ko ci sunna ray ko ci bu ñuy dekk yàlla ñu bokk ci ñu yàlla gërëm yàlla mën na ko yàlla nañ ko yàlla defal ala kulli haal bu fekkentee ne dañuy wax jafeen-jafeen yi néegi sëy daanaka li ci oustaz laal xaw naa tëkku lool daanaka loolu bu ñu ko doyloo woon sax mën a jàll ci beneen bi dana doy waaye sëy dafa laaj yéeg-yéeg yéeg-yéeg bi ci njëkk mooy bi nga xamante ni ku góor daf ko war a yor ku jigéen ki yor ko ndax suñu borom kat cosaana sëy bànneex la ndax ba yàlla ne li taskunu ilayha dalwaaya ngoog waja ala baynakum mawaddatan wa rahma ma daxañ ci yërmande ci ku góor daxañ cofeel ci ku jigéen jigéen moom mbëggeelam la yor ku mu ko jox rek desalu la dara góor it kon dafa war a yor yërmande yàlla ne daluwaay la ñaata at ya nga toogoon amoo daluwaay nan nga meloon jamono yi nga dëkkee ci pantere bu kenn dul bale kenn du ko cuuraay amoo ambassade ca waañ ba lekk yi bu ñu ko yekkee daanaka bopp yaboo yàqoo ñe ñooy ëpp ci sa bool doole yooye yëg-yëg bi ñu koy xëcc andi ko te yëg na seet ci boppam dafay changer kër waxuma la jëmm ji ceetal waaye kër gu seet wàcc day am changement man de xaw ma ndax seetlu ngeen ko waaye seet naa fu ñu toogee waxuma bésu walima ba nag waaye bés bu ñu mayee mbokk bi soxna ba ñu toog seen kër nii di ko ndokkeel man jaww ji day changer ci man damay gis jaww ji day rafet kanam yi di leer xati ñépp ay bég kon loolu jàmm ko taxoon jóg bu ca leneen duggee rek maanaam day soppaliku soo mu ñu njar garaate ko koy sànni caag raisin yaag lépp ba ñuy waajale ku ne génnee sa kopp rek luuri liiru unku jóge ci kaw plongé ca lu unku ba tuuti tuuti ñu fa ñepp sooma ndax mbon ak ump ci biir noonu la diggante noonu la ci mbon bon bonee kon lu góor waroon yóbbaloo man damay toujours damay interpeller suñu bopp ñun góor ñi lu tax may interpeller suñu bopp mooy ñun yenent bi moo ñu présenté soxna yi mu ne ñu ñii dey naaqisaatu ak wa diin di ñoo ko wàññeeku ci xel ak diine te mbokk borom borom xel wàññeeku ku xeex ak moom yaa ko tooñ beneen bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu ñoom dey ci faar lañ leen sàkk ci faar bu gën a kawe ca faar ya nag te booboo gën a dëng jóg pour jubbanti leen ñu jub kocc dana waral damm leen waaye boo bàyyee ñu ne la dëng bu la naqari nga cay am kon jigéen xikam bu góor waroon préparé mooy mbarak laax buy baax la ne mbarab yëpp day sedd tey moom mënoo ko waaye boo amee foo fegg feggal ba teg saw soow rek santal yàlla ñun ñëpp loolu la ñuy dundee mënu ñoo ne soxna yi 100 pour cent di ñuy baax loolu mënu nekk te yaakaar naa ne lii ñu leen di wax ah man kii mooma may sama aawa maa ngeeg ñaar yëg boo ndax mus naa ñëw ci moom maa soxna si ñu gaaral ko suñu problème amul ndax lu tax li ma ko jàppee mooy maanaam am na fu mu tàngee am na fu mu seddee damay woytu fu mu tàngee di jaar fa mu seddee rek ba am lu ma neex te di ñuy faral di ne expérience dafa baax ndax dafa am benn téere bu benn sëriñ bind téere bi day wax ci lépp société lay wax mais néegu sëy li mu ko càmbaree foofu ku ca tiim su fekkentee ne doog nga jëfe ci ixlaas di nga say problème dana tuuti mooy dafa ne saailul ulama wa xaatibul hukama wa jaalisul fuqara laaj leen way xam yi fasalu ahlu zikr ngeen waxtaan ak way xereñ ya ndax ku fekkee ba courant di coupé moo la ne photo yaa ngi bor bi mais ku fekkee ba courant di coupé bu ngeen àndee dugg ci néeg bi bu nee yéen a daaneel ordinateur bu leen weddi bu ñëwee yéen a daaneel télé bu leen weddi kon mag ñi jonjo xale yi loolu solution la bi nga xam ne lii biñ koy teg ci table bi ne loolu bokk na ci li nga xam ne moo lompañal sëy yi ndax liir bu nàmpul lu doy rek day xiiboon waaw te groupe bi duma faral damay faral di ko wax mooy dafa am ñi nga xam ne di ñoo toll ci nàmp nañu leen bàyyi seen i ween am ñi nga xam ne seen i dëgg génnagul ay bëñu kanam la ñu yor bëñu lekk la ñu yor nañ leen raajal riijal pompiteer jox leen ñu lekk ña nga xam ne nag seen i bañ dëgër na ñu ngi bëgg a làqi at ñu jox leen yax ya ñu seen kon xale yi il faut ñu jonjo mag ñi loolu su amul problème day am beneen bi mooy yëg-yëg yi nga xam ne dafa dee te yëg-yëg su ma koy misaal toujours sama jàngalekaay bi damay ne mooy fiilu courant bi dox diggante contact bi ak lampe bi su fil bi daggul rek soo laalee contact bi mu takk waaye sooy laal contact bi fil bi lampe bi takkul rek fil baa dox yëg-yëg bi nga xam ne ku góor ki moo ko waroon am ci ku jigéen bu muy jël masalan kii jigéenu jullit la ndax man li may développé weesu na sax ay waxi ibaadu mais damay laar société bi yëpp laay wax damay faral di ne sœur bi nga xam ne moom ngay takk waroon naa muuru nekk ci mbedd mi tumuranke nga jugal ko sa kër fat ko boole kook sa jabar di ko xottil di ko faj ba ay mbokkam feeñ mbaa nga gis ku ko attan nga jox ko ko kookee nga waroon dimbalee nii muñ ay sikkam muñ léppam ndax li leen yàlla booye muy ashadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah lii bu fekkee yëg-yëg baa ngi fii yaakaar naa problème yi ci sëy yi waroon naa mooy ndax koo waroon fat di ko dundal mu jigi ñu ne la alxayri dox na seen diggante te yent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ragal leen yàlla ci jigéen ñi ndax yàlla ngeen signanteel contrat wastahlaltum furujahunna bi kalimatillahi subhanahu wa taala rawahu imam muslim yonent bi nee na ragal leen yàlla ci jigéen ñi ndax ci yàlla ngeen sukkandiku ci ay kàddoom ba mu daganal seen pay ci yéen pay soxna yi ci yéen kon ku amante contrat yàlla kooku engagement boobu war nga xam boo nelawee kan ko sekkal nelawul dégg nga ci beneen bi mooy yéeg-yéeg bi mooy damaa am sœur am ay jarbaat am ay rakku yu jigéen am na lu ma leen di bañal ndax defuma ko rakku jaambur lii sëy daf ko war a laaj mbës laayo munta ñàkk beneen problème bi nga xamante ne moom laa ci gisaat mooy ñun mbokk yi amuñu préparation psychologique pour denc jigéen ndax ñun suñu bopp dañoo am problème ci suñu bopp ñun denc wuñu ndax ñun amuñu programme denc wuñu ku dencuwul nag du dencee ndax jamonoy xiif ku laaxul lekk doo jaay wax ma la di laax di maye te balaa nga ne naam ne fa yaakaar naa ne préparation bi nga xamante ne moom la góor war a préparer pour takk jabar préparation yi des na lu bëri ci ñun ñoo yar seen bopp ñu bëri ci ñun ñoo yar seen bopp léegi nag ba ñuy ñëw ci sunna di ñoo fipp dugg ci sunna comme di ñoo fipp nekk ay sunnit nag dañuy yaakaar lépp fipp la ndekete mbir mi demeewul noonu peesat nag la mbir mi fees nag la boo yemee ci yax soxla nañ fa jaas waaye boo yemee ci yàq yemal ca paaka balaa ngaa yàq ndawal waaye boo jëlee paaka yóbbu ko ci yax da ngay noxal paaka maa nga yàq ko waaye boo yemee ci yàq bëgg ko utiliser jaas yi da ngay yàq ndawal ndax yàpp kenn du ko gor diñ koy dagg boo su ko defee faatu kullu zu haqin haqa loola diñ cee am muskila bu garaw ndax doomi aadama am niveau ci néegu sëy day laaj ngay jonjoog ñu la ci jiitu ngay jonjoog ñu la ci jiitu dégg nga ci ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg na ziyaare Ali ba mu ziyaare Ali fekk ko fa mu ne ko Fatima mu ne ko naam mu ne ko ana sa doomu bàyyi tëx bi mu ne ko daal tey wax na ma tontu mu ñagasal ma ñagasal mu génn néew ma maa ngi dem laajuma ko foo jëm yonent bi jaaxle na ah Fatima daa di génn ne benn waaye unzur ayna huwa xoola na fu mu ne waaj a xool ne ko ma nga ca jàkka ja yent bi ñëw di ko tàpp comme abatura bàyyi suuf jógal bàyyi suuf jógal ñëpp di uuf seen doom ngay uuf suuf ali ba mu jógee dalu saabay seen yar seen respect yent bi mooy ku ko musaa xool da ngay muuñ reetaan du say bañ génn ba ali reetaanee yenent bi ne ko ali jógal ñu dem kër ga jigéen ñi ku ñu jotal noo la tooñ waaye am leen di jàmbat seen yu sew moo gën ñàkk leen di leen wuti ayuha célibataire xam nañ ci daal am leen di jàmbat seen yu sew yooyu ñu lay def ndax ñu ngeen jikko yu sew waaye ñu ngeen ceeb yu sew yu sax su jikko yu sew yi jëlee paasu ceeb yi place ceeb yi nag boo dul muñ kat kar jaag rey la baa dooree sa appatay doo kon dafa laaj yaa dënn mun ta ñàkk dafa laaj yaa dënn beneen problème bi nga xam ne dama koy jëmale ci jigéen ñi mooy jigéen ñi préparation bi ñu waroon am dafa des préparation bi des jigéen ñi war koo am mooy tey waajur yi lu ëpp illa man rahima rabbika ñu dul ñu yàlla yërëm mooy tey bu ñu nee sa doom la ñu maye doo càmbar ji koy li ngay joxe jag naam jagul léegi maanaam règle générale yor jigéen mooy ñaari dee yooyu te arab bi ko ne dallun mooy na duuf te dof mais léegi illa man rahima rabbika jigéen ñi ñu bëri kenn yaratu leen kenn yarul seeni xel léegi bu ñu nee sa doom la ñuy maye yaa ngi récupéré natt yeeg yabale yeeg ndaye leeg lekku nday mais la ngay jox jag naam jagut léegi soxna dama lay wax ku ko takk kenn muccul ci li may wax xanaa ñu ci mucc ñu néew la ñuy doon mooy soxna da nga koy takk ba pare 4 ans ngay rek dama lay formé ñuy wax ci bët bëggatuma di wax nit ñi di ma dégg ñu bëri fi ñu dëkkee de ñu bëri ñu ngi ciy réussir ñu bëri sonn nañ ci 4 ans ngay formé day mel ni oto bu paan 40 ans dajji daajaat changé moteur pistolet lépp a lay war parce que société bi ñuy dund moo négligé yar ñoo négligé yar moo tax na léegi boo takkee boo yaawul dënn rek doo dem ndax tubaab bi noonu l'islam la te mondialisation bi dafa laal fépp mondialisation boobu ñuy wax muy xeex diine dafa laal fépp keroog semaine bee passé toog naag benn maire bu dëkk Ndar màgget ma ne ko nag soxla naa sa expérience ndax man damay def ay waxtaan mu ne ma sama doom ñun ngoro bu Musaa am xale bu góor bi day jël néegu ndeyam néegu nijaay doomu nijaam néegu bàjjanam côté bàjjanam néegu baayam ñoo koy gunge mu ngoro ji bu ñu ñëwee summi dàll yi soxna si ñuy labat tànk ndox jox leen ñu naan nes tuuti ñu génnaat bu ñu fekkee dàll ci ginnaaw seeni dàll loolu mooy am na ku leen fi jiitu suñu jëlee benn partu wëlbati ginnaaw loolu mooy dem leen woo seen kilifa bu ñu boolee ñetti dàll yépp wëlbati ginnaaw mooy diñ leen a dàq mënuñu leen a waay jabar mu ne waaye coow du jib mu ne ña doon ngoro si kilifa yee ñu yabal daan nañu ñëw te aadatan kilifa yay négocier sëy dañ daa reeree fañ doon négocier sëy bi waaye bu ñu nee ndaw si nga xam ne moom la ñu labat doxal ca waañ ba ci néegu biir ba ca wanag ba nga seeti reer ba nga sóor ko nee na bu xale bi jigéen bi demee xool cere bi li fi ne motul mag ñi day dellu si ne yaay boo yoo mu ne ko naam mu ne ko ma gis la ay yaay tey kër ndey leket laa jóge pepp new fa xanaa xamoo woon tey di ñoo am xew loolu mooy dugg naa ca waañ ba pepp bu ma mën a sóor amu fa waaye day ne yaay ja ndey leket këram laa jóge waaye pepp new fa xanaa tey di ñoo am xew loolu laa defee de yaay ji jóg xam ne fa mu ko yónni woon lam fa laayo gis nga xoolal yi xoolal yi liyaar yu am solo dégg nga ci yi yëpp ñu bokk ko ñàkk dégg nga ci tey jii lu gën a xarit mooy problème mu néegu sëy yi bokk na ci mooy oustaz laal na ko duma ko laalaat mooy jikko mais man li may wax toujours mooy sëy dégg nga ci am na li mu manqué mooy entente bi nga xam ne moom mooy dox diggante ku góor ke ku jigéen ki man dars boobu dama koy waxe mais du ma ko rus a waxe parce que man su ma amee ay gan dama leen di jiital man du ma njëkk génn samay gan kër timis jot na di ñuy julli ji dama leen di jiital su ma tolloog soxna si xool ko mu xool ma ma yëngal bopp ne ko nii mu xam ne daa war a dolli ñu fii la ñu reeree mbaa nga xool noo def su ma ko xoolee yëngal bopp mooy ñii daal di ñuy julli ñibbi duñ fi reeree jàmm ne ñoom ma sàmba du dégg ma demb de waaye toog ba mu ne jalaan sa kaw xanaa ñii fii la ñu reeree ñu ne ko doy na de diñ fee jaaro rek fekk kersaa leen di bëgg remee di ñoo ñoom pour reer ñàkk nite gi nga xam ne ménage yi dañ koo ñàkk nite te góor wax dëgg yàlla wa jaal naa ay imatan yax duuna bi am ni naa yax duuna bi am ni naa lamma sabaru wa kaanu bi ayatin ya yuqinun al rijal qawamuna ala nisa boo gisee ñu wax ko mooy xel ak kattan a taxoon bu demee ba góor tanatu taneetul na kamu yor problème day bëri beneen bi mooy ñun ci góor ñi ci boppam oustaz wax na ko sànq tey nga ci triche am na mais man dama ne ce qui est très grave mooy mbokk yi amuñu engagement maqaasi di noogi sëy may jubluwaay bi dama am yaay dafa naqari deret man moom su ma sañoon booy dox ci suuf dëgg bu la nar a jam sax yàlla na yem ci man te nga mucc ca waaye kii sama màgget la sama yaay la loo gis si moom te déggoo ko ci man rek bu mu la bu mu la naqari loolu préparé ko jigéen ki waaye bu ñëw dugal ko moom petit prince buy ñëw ci kër gi la rek di blaser te suñu yaay yi bu ñu jëmee mag bi ñuy naqare seen affaire day metti te yaay boo gis bu doomam di takk jabar xelam du toog ndax mi ngi nekk muy indi mbaa du tag mbokk mbaa du ma tàggaleeg moom ndax orange ya néegu yaay lañ ko doon wàccee salaire ba yaay moo daa dajji enveloppe ba léegi nag am na kuy ñëw war a séddoog moom li nga war a former sa jabar mooy bu ñëwee bu dee soow la na ko séddale kër gi yëpp naan mu ñàkk bu dee fruit la na kër gi yëpp am moom mu ñàkk ndax fruit bu dàq ci fruit yi mooy bu ñuy lekk ci mbaaj yi te balaa ngeen di tëdd yaakaar naa da nga rek la lu ngeen lekk ci biir mbaaj yi waaye andi jabar ji nga xam ne lu mu am sànni coroon lal ba fruit yaag soow piir yaag dégg ci parce que lépp kat bi dafa ne doom bu góor ndawal la ci digg ndax teguñu ko fa pour muy suur nit ñi waaye day sëfal tëbb yëpp waaye bu jigéen seey seey ci kër fekk ndawal ci digg ndab ba soppaliku ceeli këf ko yaayee soppaliku baaxul fekk ko ci kaw air bi tas na kër yu bëri dégg nga ci tas na kër yu bëri kon yaakaar naa ne lii moo doon suñu introduction ci li nga xamante ne mooy mariage yi mooy une fois de plus mbokk yi nañu jonjoog ñu leen ëpp expérience ñu la ëpp expérience parce que boo gis nit womat fasam bu ko ne nan nga def ba sa fas bi maamut waaye nee ko ba mu mammee nan nga def waaye fas moom maamut benn fas bu dul maam amut waaye bu ko ne na nga def ba sa fas ba maamut bu ko wax waaye nee ko ba mu mammee nan nga def ba jotaat ca waaw te yaakaar naa ne can seer na dàll yi dagg na xaru tabaski nag di ko laaj ci koñ bi fajaru tabaski yooy woon ko buumu nag a gën dajale waat can daal jàpp ak fukki loxo ko gën yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla nañu yàlla sàmmal suñuy néeg
jazakumullahu xayran yal na yàlla barkeel xam-xam yi kon mbokk yi ñi ngi woon ci jafe-jafe yi nga xam ne moom mooy am ci ci sëy bu ñu ko tënkee rek pour ñuy door a ñëw oustaz Saïd li jot nañu fi gaaral maanaam problème bi njëkk a am moom mooy maanaam ñàkk a respecté rendez-vous muy waxtaan bi ñun ñëpp xam nañ ne 15 heures la lañu ko programme am mais moom moo fi jiitu maam xamal nañu ni koo xam ne da ngay ñàkk a respecté rendez-vous maam sëy waxi nopp kon donc problème bi ñu njëkk a war a saafara moom mooy maam problème boobu noonu Euh, tënk na itam ci ñetti tomb bi nga xam ne moom moo waral problème mu sëy mooy dañoo maam ignorer Allah subhanahu wa taala maam dañ ko réere Euh, bu ñu ko waxee nag si milieu su nit maam nit ñi dañuy jaaxle li ñu wund rek mooy que ne Allah subhanahu wa taala moom moo digle sëy kon euh, nit ñi war nañ xam ne sëy jaamu yàlla la. bi ci topp moom mooy moo yónni yoon bi salaay salaam mu jàngal ñu li nga xam ne moom mooy sëy kon waruñu réeree maanaam jàngale yoon bi salaay salaam ci wàllu sëy ñetteel bi mooy islam bi nga xam ne ci la ñuy dund mu wan ñu li nga xam ne noonu la ñuy sëy kon réere ñetti mbir yooyu muy allah subhanahu wa taala réere yoon bi salaay salaam ci dundin bi mu daan dundee ci wàllu sëy ak islam ci li mu jàngalee sëy maam yooyu bokk na si yi nga xam ne moom mooy problème bi wax na itam que ne maam say contrat la boo xam ne way dencante yi dañ ko signante mu ne itam ci wàllu sëy nit ñi war nañu xam ne maam ci la doomu aadama di continuer di amee maam dund gi di continuer wax na itam ne sëy lu am solo la parce que Allah subhanahu wa taala maam dafa def ñuy dalee ci biir sëy comme li nga xamante ne bi noonu la ko aaya bi indi bokk na si problème yi mu junj itam ñu ngi xamal ne maam sëy ci boppam bokk na si problème yi mooy ñàkk a wax dëgg ci tàmbali bi ci ba ñuy lawat wala ci biir sëy bi yëpp ci ay dige loo xam ne mënoo ko ak tricherie yi aussi tricherie yi moom mooy ngay wane ay jikko yoo xam ne ba nit ki dugg si yow bu demee ba ci biir maam mu gis leneen loolu bokk na si problème bi junj na fi itam ci problème yi wàllu rëy rëy ci sa kanamu soxna ci di ko war a mën a defal ay mbir yoo xam ne mbir yu yu simple la yoo xam ne dañ koy laaj ci moom mu la koy defal yu demee ni ay pomp ay dàll wala téye ko seetu bi par exemple rëy boobu su dañee rek incha allah problème yooyu dina mën a saafara bokk na fi itam ci li mu junj ci problème yi mooy maam jikko jikko yi dañoo xaw a wàññeeku lool lool lool lool vraiment nit ñi war ñu tàggat seen bopp ci wàllu jikko itam ci problème yi ñàkk a muñ mu ñëlante ci way dencante yi loolu itam gaaral na ko ci li nga xam ne moom mooy problème yi itam ci wàllu problème ba tey maanaam cofeel bi dafay gën di wàññeeku na mu daan amee ci tàmbali sëy bi buñ demee ba ci biir dañuy gis ne loolu dafay gën a wàññeeku maam ci tënk daal loolu la gaaral comme mbir yi nga xam ne moom mooy indi problème léegi li Oustaz Ousmane wax ñu ñu si bëri fekkee nañ ko moo tax jaaraatuma du ma si jaaraat incha allah léegi dañuy jublu si yan solution si tënk rek ci 10 minutes incha allah ñu jox Oustaz Sanj li mu indil ñu ay quelques solutions ci wàllu maanaam problème yi nga xam ne moom la jaaroon incha allah bismillah.
alhamdulilah mbokk yi sant yàlla tabaraka wa taala ñu def waxtaan bi benn jaamukaayu yàlla boo xam ne incha allah suñuy problème yëpp buñ fi jógee yàlla tabaraka wa taala dinañu ko régleel mu nekk benn yoon boo xamante ne euh, danañu rus di am ay jafe-jafe ba ñëpp di ñu dégg ci mbedd yi may bàyyiloo xel mbokk yi rek kenn du wax ne sëy du am problème kenn du ko wax ndax yàlla tabaraka wa taala loolu moo tax mu indi fase mu nekk solution waaye dañu bëgg mu néew ci ay nit yoo xamante ne ay royukaay lañ dañuy jàngale diine day néew ci ñoom warul bari maanaam warul nekk comme tey ñun niñ koy defee xoolal mbokk yi dañoo bëri ah su dul yow soo demee rek waaye maa ngi indi keneen léegi mu géré néeg xam nga loolu moo tax affaire bi garaaw da ngay wax ak benn góor rek mu ne la xoolal mbokk yi dañoo bëri de te gis nga man man mbokk yëpp dañu maa bëgg. warul warul demee noonu suñu biir daal warul demee tamit di wax sa jëkkër ni xoolal man boo ma fasee keneen takk ma bu dul yow di keneen. yooyu dafa nekk yoo xam ne war nañ ko war nañ ko daw wax naa sànq bi ñuy ubbi waxtaan bi ne ñun dañoo am jubluwaay mais li garaaw tey mooy ñun ñëpp góor ak jigéen dañoo fàtte fi ñu jëm lépp loo gis mu am rek daf ci am alhadaf wal gaaya tey buñ tegoon lekk buñ nee nit na lekk lan mooy jubluwaayu lekk lan mooy jubluwaayu suur am na ngir doomu aadama dund yooyu loolu mooy mooy ñun xamuñu fuñ jëm lan mooy sunu jubluwaay ñuy def ay mbooloo di dund sunna jéem a dekkil li fi yonente bi waaye woon lan mooy jubluwaay bi est ce que ñu dem ci jàkk bi ñu julli rek xabdu am sikkim suñ tubay bu gàtt ñu sol mbax ne terminé loolu la du loolu ku jàpp ne loolu la rek doo egg fee wax naa ne dund diine li tax ñuy groupe di ko def mooy changer société bi dañu bëgg tëral dawla al islamiya ci addina bi comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defee woon loolu mooy jubluwaay dund sunna bu kenn yaakaar ne jubluwaay dund sunna mooy yemale ko ci mbubu yi ak yenn melokaan yi feeñ ci biti ku jàpp loolu bu dee ci jigéen la ñu jàpp ne suñu muuroo jeex na ah déedéet su fekkee rek suñu jubluwaay mooy ñu changer société bi ak société bi fii mu toll tey kon ñu xam ne ñun demagul fenn looloo tax kii sëy ci kër ñaar ñiy sëy ci biir kër kër googu nga xam ne ñoom ñaar dong ñoo fa mel noonu ñoom lu leen war mooy seeni wax sax nit ñi waruñu ko dégg bakkan la ñu war a waxante ak ay baaraam bu fekkee comprendre nañ ñoom ñaar seen mission solution yi ñu doon wax problème yi ñu doon wax léegi pour ñu wax solution yi yomb la problème bu ñu wax rek solution mooy contraire am wax naa ci muqaddima bi ñuy ubbi ma ni suñ ne ñuy dund sunna dañoo réere yàlla wala dañoo réere yonent wala dañoo réere charia kenn danaa non mais c'est li muy wax c'est grave wala est-ce que ustaas bi doful non non charia ku ko réere doo def li charia di santaane lan mooy charia charia mooy lan mooy ni l'islam tërale ne nii laa bëgg mais loolu ku ko réere doo doo doo doo def sa sëy mu normal ñaari aaya ci Qur'an moo tax mënuñu sëy ñaar bu njëkk mi mooy wa ashiruhunna bil ma'ruf ñaareel bi mooy wala hunna mislu lazi alayhinna bil ma'ruf te yàlla dafa tudd jigéen ñi wala hunna la wax jigéen ñi am nañ àq mislu lesi mislu lesi alayhinna comme jigéen bi yow ni nga amee ci moom droit nga fekk ko muy nelaw nga yee ko ne ko tànqal ma ndox xam nga loolu war nga ko moytandiku sa soxnaa ngi nelaw nga dem yee ko uniquement pour dangaa bëgg sangu te tey yow boora nelaw mu yee nelaw tànqal ma ndox nga sangu allahu akbar nga taal dëkk bi mais pourquoi yow doo dem tànqal sa bopp ndox wala yow fajar jot nga tëdd ci lal bi réglé nga sa montre da nga war a julli ci fajar 6 heures 4 heures nangam nga réglé sa montre 4 heures ah portable bi sonné nga jóg xam nga jóg nga au lieu nga jóg yow mu dem tegi ndox ngay ko kumba kumba jógal tegal ma ndox yow tëddaat ci lal bi moom mu jóg pourquoi yow jógoo dem tàngal ndox sang ba pare tàngal ko ndox di dem jàkk ji ne ko sa ndox tàng na demal nga sang pourquoi defoo lool mais au contraire nga ye- nga nga yee ko dama tàngal ma ndox mu yeewu yow nga tëdd mu teg ndox mi moom tamit mën a jàll ci saal bi tëdd ah wala mu daal di lal ci suuf tëdd yow nga yaakaar ne mi ngi tàngal ndox mi da nga jeg-jeg-jeg na asalaatu xayr nga tëb fekk ba léegi ndox mi defaraguñ ko demagul ci toilette bi distance boobu diir boobu nga yuuxoo ko harcelé di dof doxlu paa yaa ngi julli danañ yàlla jubal pour ñu gàttal mooy solution yi c'est simple tomb bu njëkkoon dañuy indi woon ah alkaz lan mooy contraire am asidq dëggul ba sa jabar xam ne da ngaa dëgg bu benn mbokk ñëw ne ko sa sa borom kër naan déedéet naan déedéet xam nga fan yi dafa am benn waaye bu ñu rey jaaykatu oto bu benn booyam rey ah jabaram lan moo tax mu xam ne jëkkëram am na lu ko dal dafa woote portable bi jot keneen ana ana borom portable bi mu ne dafa occupé deux minutes mu woote waat jot boîte vocale cinq minutes mu woote jot boca- boîte vocale dix minutes mu woote boîte vocale mu woo gendarmerie neen sam portable jëkkër kenn mus cee wuy ku dul moom te woote naa ci jot nit ma woote waat depuis ngoon ba léegi maa ngi woote boîte vocale lay jot gendarmerie def alerte Sénégal ndeke waa ji dañ ko rey ba waa ji jël oto bi mu yoroon di ko jaayi ji Guinée Bissau dem ba Diaobé gendarmerie Diaobé ñoo ko jàpp xoolal ndaw soosu ni mu vigilant yi ni mu xamee borom këram la moo ko waral parce que borom këram dafa dëggu mais yow boo dëgguwul ku jigéen ki dëgguwul yow dëgguwul yéen ñaar da ngeen nekk ci néeg bi rek di tricher ko fen di tappale fu ñu jëm du dem kon benn bu ñu wax problème rek tricher waxoon nañ ko sànq yooyu lañ war a bàyyi jikko yooyu ñu dëggu hadis yi jàngale dëggu ñan lañ koy jàngal ñun ñoo ko moom gis nga chaque jour ma wax mbokk yi nañu mooy tindi ko jël aaya ak hadis yi di ko firi defe na ñun moomuñu ko ñun defe na ñun moomuñu ko ñun ñu ñoo moom aaya ak hadis yi yéeféer yi moomuñu ko de ñii ci mbedd yi ngeen di tuddeel neneen ak neneen moomuñu ko ñun ñun ñu ñoo ko moom taxi yi ñun ñii ñu ñoo ko moom ñeneen moomuñu ko fekk jëluñu taxi yi nag di ko moomale suñu bopp dañuy nax suñu bopp te olof yi nee nañ ku nopp nax sa bopp sa aajo faju ma ni ñun ñoo moom aaya yi ñun ñoo moom xadis yi nañ koy jëmale suñu bopp góor ak jigéen yi ci góor ñi moom nañ ko jël yi ci jigéen yi moom nañ ko jël ñu noppalu mais buñ deful lool chaque jour ñu dégg problème chaque jour ñu dégg ay wax chaque jour ñu dégg yoo xam ne mais léegi loo gis daanaka ñun ak ñeneen ñi daanaka ñoo yemaa lépp looy wax ci mbedd mi boo ñëwee ci ñun fekk ko fi loolu lu doy waar la ci ay jikko yu doy waar yoo xam ne da ngay gis ay nit yu nekk ci koñ sax ñëw ba cëw ne la yow diw est-ce que ci yéen la bokk ñu ne ah tey ñu ne non non kooku nangam ak nangam ak nangam sa yaram daw baaxul waaye léeg-léeg ñu ne mais est-ce que yooyu baaxul dinaa joxe misaal rek benn jigéen maanaam ñaari sunit yu yu luwe ci benn kër kër gi yëpp immeuble yëpp nekk ay locataire yéen ñaar ngeen nekk fa yéen lan ngeen ci kër googu ah mais est ce que yéen ñaar ñooñu war na leen atte guddeeg bëccëg léeg-léeg ku jigéen ki takk ku jël ku du cunuwaar ku góor ki doo xaar leen xaar leen est ce que loolu jaadu na non dañ soxlaat suñu bopp mbokk yi dañ xoolaat suñu bopp est ce que diggante ñaar ñuy sëy góor ak jigéen ay sone la ak ay dóorante ah non passé nañ foofu waxoon naa ci su- kii euh, problème yi rëy rëy lan mooy contraire am góor day wax diggante ak soxnaam ak jabaram mbokk yi ndax yéen a gën a oyof yonent bi ah mais yonent bi est-ce que jàngalewul oyof ci biir këram yonent bi dëbb na ba loxo bi fut yéen fii ku wàccoon liggéey ñu ne la dëbbal dugub ji dañuy toog reer la yow kii moo réew mii kii il faut muuti ñaareel quoi yow rek ma yëpp foo takk ñaareel ah kon takk ñaareel mooy régler problème bi kafal génn ci sax même boo dëbbul bi kafal génn ci waaye waaye mbokk mi dimbali ma tey dama xaw a sonn quoi jàppale ma rek affaire yi nga tëddi su ko defee mu réegare mais ah yow wóor na yàlla suba ma takk ñaareel kii dafa ma yëpp ah loolu moo koy réew ndax yéen a ngi koy oyof yonte bi diggante ñaar ñuy sëy rëy amu ci bu kenn jaay moroomam affaire góor ak jigéen bu ngeen xasee bokk mbàjju sangu li ngay jaay teg ko fële amatul amatul importance kon rëy solution mooy oyof xam ne ni nga amee autorité ci moom noonu la amee autorité ci yow ñu jàppalante ngeen ñaar ngeen jàppalante ci liggéeyu kër gi ci leneen ci leneen ci leneen ci leneen ngay neexal sa soxna mu lay neexal benn waaye day am soxna mu ne soxna si man ak yow du ñu am problème ndax si ne ko lu tax mu ne ko saa yoo meree dinaa la xam saa yu ma meree nag ma comprendre yonent bi saa salaam jàng ngeen ne yonent bi dafa comprendre ba comprendre Aïcha dafa ne Aïcha yow dama la xam Aïcha ne ko noo ma xamee mu ne soo meree sax xam naa la mu ne noonu mu ne da ngay gàddaay sama tur di wax wa rabbu Ibrahim sama tur sax dañ koy bàyyi mu ne bis boo xëyee daan ne wa rabbu Ibrahim rek dama naan ah kii kii moom tey moom yëf yi ñëw na mu commencé naan ko yaa Aïch wala mu ne Aïch dana yaa Aïch di ko neexal mais yow tey boo xëyoon sa soxna fas kanamam rek dépasse bi ci kaw taabal bi nga ko rek def xoolal par baa ngi neexoon ga yàqam ba toogul yàqam ça de du noonu de du noonu de du noonu de mais dafa mer xëcc ko akalaat ko fóon ko teg ko sa dënn lan la mais lan la lan laa def mu ne la def nga naa ma nga nangam wala dégg naa nangam ak nangam mu ne eh, foo yëgi loolu ku la wax loolu mais loolu la dafa am mbir yoo xam ne kenn du ko yar ci sëy gis nga sëy journée bi lu fi am kenn warul tëdd te réglé wuñ ko est-ce que xam ngeen loolu problème bu am kenn warul tëdd réglé wuñ ko boo bàyyee mu denc muy denc ngay denc muy denc mais cin buy bax nu muy def ci kaw la jëm après day tuuru day jékki-jékki sax sëlër bi am na fu mu yëm kubéer gi day naaw waaye pour lu waral loolu mooy dañ koy yàgg a denc kenn du denc yooyu dañ koy régler par minute par heure lu xew mais tey lan la li ngeen tëddee nga ne ko tey lan la dama gis nga changé mu ne la damaa dégg nangam ak nangam xam nga li gën a dangereux tey mooy ñun léegi dañuy jëw ñun yu baax yi dañuy jëwante suñu biir jigéen ñi clan la ñuy def góor ñi clan jigéen ñi dañuy ànd di doxaani góor ñi jigéen ñi di di di feeñal secret yi léeg-léeg ay mbokk muuru defaru ba rafet ñëw ci sa jabar ne ko yow diw diw lay àndal diw lay labat ni sama ndey am nga problème sama kër lañ déparé moo ko sama jëkkër ma ko wax nee nag ci diw lañ dem si bu ko defee problème commencé kooku bu jëkkëram yegg see rek du teg reer femme boobu du teg reer bis boobu moom tamit xoolal loolu au lieu mu gérer ko xool nu mu koy réglé bis boobu du teg reer su ko defee nag foofu mooy nekk fippukaay wax yi commencé génn nag yaa ngi amoo dara wala kaana bi nga doon eh mën nga doon wala kaana sone yi commencé mbëkk yi commencé histoire commencé mbokk yi loolu du du nit du nitee ci waxoon naa ci problème yi wala egguma ci woon euh, mooy nay nay lan mooy contraire am tabe jullit day tabe wax naa leen ci yéen ñii wala ñun ñii wala ñun ñëpp bi ñuy doxaan xale bu jigéen bi suñu téléphoné allo nga ni wéy mu ne wàcc nga nga ni non wàcc guma mais xam naa léegi mu ne non tey dama gëj a lekk dibi quoi vraiment bëgg naa nga indil ma dibi da nga naan ko xoolal au lieu nga ni ko waaw mu ne ñaata ñaata ngay wax su ne 1000 francs nga dem jënd 2000 parce que boobu yaa ngi yoot léegi bi nga yootee ba am loolu nga doon nga am mais da nga war a continuer wala léegi am nga rek saye yow bi ngay doxaan nga tabe nga takk nay dafa am benn mbokk ci mbokk yi la jarul muy wax turam saa yu wàccee day jaar restaurant ci benn may ga bu ñëwee ne may ga defaral ñaari sandwich bu ñu ko defaree ñaar moom mu toog reer ba sam ba pare jël beneen bi laxas bu marge bi ni ko mais yow mais da ngay reer ñaari yoon may mu ne marge bi pourquoi nga wax loolu mu ne mais yow da ngay lekk fii après defaraat beneen comme li nga defar fii nga yóbbu sa kër ne soxna si dafa war a lekk comme man yow tamit waaw ñaata ci ñun fii ñooy jaar restaurant dóor yàqu ba suur ñëw bàyyi waa kër gi di lekk fole dama leen di laaj mari ñaata ci yéen fii ñooy jaar dibi dóor ba ni kuc dóor butel boisson naan meew ñoo ñu ne la ah tey de foon nga ne non tey garaawul quoi ah bàyyi woon rek fekk yow xam nga ne bàyyi woon noonu am nga foo jaar loolu du loolu du tabe loolu rafetul gis nga jigéen ñi olof yi dañuy wax ne ko ëmb sa sànqal ëmb sa kees waxuma chaque jour nga koy def de léeg-léeg nga wàcc indi lu mel noonu léeg-léeg nga wàcc indi benn col léeg-léeg nga wàcc indi benn montre léeg-léeg nga wàcc indi benn lam saa yu marché bi neexee changel tuuti gis nga loolu dafa am lu muy def lu rëy jullit du nay maanaam bëgg yow tabaski ba tabaski laa lay jëndal daal tabaski ba tabaski laa lay jëndal kaal tabaski ba tabaski laay kii loolu baaxul yenn saa yi du ñu wax ne chaque jour nga def ko mais yenn saa yi mu neex fexeel ba bis boo amee xaalis ndaw si xam ne sama jëkkër am na xaalis tey mais chaque jour awma awma awma loolu baaxul na fexe ba bis du la ñaan gis nga ku mel noonu bu sa soxna xamee dootu la ñaan waaye aussi ndaw si aussi moom it na xam ne chaque jour nga dëkk ci jàmbat baaxul nangam nangam na te jigéen ñu bari léegi noonu lañ mel lan moo waral mooy mbokk yi dañu ñëw dund diine ba pare boole ci bëgg àdduna bu mu xew ñu ne nañ ko sol kaala bu génn nañ ko man damay jékki-jékki ma tiit may tourné koñ rek wala ma ñëw ci benn mbooloo rek ma gis artistes yi jigéen yi ni ñuy solo ma gis benn mbokk bu ko solo wala benn mbokk dama daan gis RTS 2 RTS non RTS benn femme buy def journal kaala gi ni mu koy def ak nopp yi ma jékki-jékki rek commencé dugg ci suñu mbokk milieu ma gis mbokk yi commencé di muuroo noonu ah affaire bi garaaw la wala saa yi ma dugg ci benn école rek gis xale jigéen yi muuru ñu bëri dangal nag ñoo toog waaw fas seen kanam ma ne mbokk yi lii du lii de il faut ñu bàyyi ko xel ñun nañu xam fu ñu bokk ñun nañu xam ñooy ñan ñun nañu xam li ñu yor suñ ko defee ñëpp dinañu wuyu si vendredi bi passé dafa am benn mbokk bu ñu doon tuubal waa ji bi mu tuubee ba pare ñu accueillir ko dugal ko ci benn néeg ma laaj ko lan moo tax nga tuub mu ne ma damaa seetlu ci diine l'islam ñaar ñu amul ci diine christianisme ma ne ko bu njëkk bi lan la mu ne ma christianisme ci wàllu jaamu yàlla dañuy boole jigéen ñeeg góor ñi ci benn place yenn saa yi nga gis benn góor gu toog ñaari jigéen seq ko mu ne damaa seetlu jullit yi seen jàkka yi góor ñi ak jigéen ñi bokkuñu fu ñuy nekk ma ne ko ñaareel bi mu ne damaa seetlu jullit yi jigéen yi li ñuy sol ak ñun suñu diine du benn jigéen ñi dañuy sol col yu baax ci islam mu ne ci christianisme jigéen ñi lu bon rek la ñuy sol léegi nag bi mu waxee loolu sama xel dem ci nañ xool léegi jullit yi fii lu ñuy sol te xoolal ñii ñu ngi ñuy bàyyi xel ndeke ndeke ñii ñu ngi ñuy xool ba sunu mbir neex ci ñoom ñoom ñu ñëw waaye xam nga lu garaaw mooy li leen indi dañuy jékki-jékki gisaat ko ci biir jullit yi loolu loolu baaxul musiba naaru laay la waxoon naa beneen ci problème yi contraire am mooy naqsul aatif yi ku góor ki ak ku jigéen ki seen cofeel di wàññeeku maanaam ñaar ñuy sëy cofeel bi warul wàññeeku mbëggeel bi laa bëgg a wax warul wàññeeku ñaar ñuy dencant dafa war a yokk mais léeg-léeg nga di gis benn góor gu ne non xam nga man lu tax yow mu bàyyi def non rus naa laa fasa rek bu jigéen gi ne yow wallaay xale ya ma fi bàyyi yow tamit yow xam nga ne xale ya xam yow xam nga ne lii boo koy def xale ya tax de loolu baaxul waaye yéen warul leen yegg foofu yéen chaque jour ci mbëggeel ak yërmande bu yéeg ngeen war a nekk mbëggeel ak yërmande moom chaque jour mbëggeelam di yokk yow chaque jour sa yërmande di yokk mais ngeen jékki-jékki kii naan billaay yow xam nga ne mbokk yi laa rus rek kii naan wallaay man tamit doom yi laa xool kon léegi yéen ñaar nan ngeen di dunde kenn ku nekk xam nga lu muy def foofu ay ndaw yu sentiment yu tuuti lay def dootoo dem ba jeex ndax xam nga ne kii bëggeel bu mu la bëgg dafa am fu mu ko yemale yu mel noonu yooyu lañ war jeexal ko ci suñu dund mbokk yi fexe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ma waxoon ci tàmbali bi mooy ñett suñ ko réeree dundem dañoo réeree ki ñëwoon di jàngale sëy muy yonent yàlla Muhammad yonent bi ngeen di gis ñu koy wax guddi ak bëccëg moom dong mooy modèle ci sëy moom donga mooy modèle ci dundin lu doomu aadama war a dund yonent bi dong la Ibrahima munoo ko cee roy munoo ci roy Nuux munoo ci roy Muusa munoo ci roy Isa munoo ci roy Yuusuf munoo ci roy benn yonent yonent bi rek xam ngeen lu tax moom dong nga def lépp yonent boo jël am na lu mu deful yonent bi nag lépp la boole lu doomu aadama di dund yonent bi lépp la boole def ko wane nuñ koy defee mu wax ko jàngale ko moo tax moom dong moom mooy modèle bi yàlla mu nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ku roy yonent bi doo juum jigéen ñi ku ci roy yonent bi du juum góor ñi ku roy yonent bi du juum yàlla yàlla def ñu roy salaamaaleykum wa rahmatullah barakallahu man dañuy daal di jox oustaz Samba incha allah mu indil ñu lenn ci solution yi moom.
bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin question lañu la والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñoo ngi santaat suñu borom subhanahu wa taala di jël ci yenante bi ñi ngi ñaanalaat une fois de plus encore oustaz yal na yàlla sàmmal ñu ko ci ay solution yi génnee di ñaan mbooloo mi toog it yal na ñu yàlla sàmm sàmmal ñu suñu néegi see sàmmal ñu suñu pas-pas ndax liñ fi teg mooy maanaam defaraat kër yi xëy na jataay bi nekkul jataay bi nga xamante ne mën nañ fee sukkandiku pour defar lépp waaye li ñu bëgg a ubbi lu ci ëpp solo mooy relation entre mag ñi ak xale yi mooy jonjoo am li la masala di réeré nga koy dellu sa seex léeg-léeg del dellu ci moom ci néegu sëy jafe-jafe ñi néegu sëy del dellu ci say seex bu ñu waxee nag muskilaatu zawjiya solution bi ñu koy wax dañuy ne lu ci jiitu mooy maanaam doomi aadama bi ci boppam dafa am ñaar yuy gaal ñeenti sëy bi ci njëkk nag bokk na ci mooy ñaar ñi sax léeg-léeg du ñu jote ñaar yi way dencante ya léeg-léeg du ñu jote waaye influence mooy jóge ci biti dal ci sëy bi néegu sëy bi néegu sëy bi am problème kon néegu sëy daanaka ñaari problème la bii problème day jóge ci man baa mu jóge ci sama soxna bii problème ci biti lay jóge mbëkk néegu sëy bi bon lu ñu mën a joxe comme solution mooy commencement thème mooy ñaar ñi nga xam ne ñooy dencante nañu sécuriser ménage bi dañ ko sécuriser ménage bi jaayante nañ ci loo déggu ci man bu ko gëm loo gisu ci man bu mu la saf loolu wax ko sa jabar dëxañ ko ci ba mu saf ci mooy maanaam loo gisu ci man bu mu la saf aussi ku góor ki dafay laaj mu am mental na am bopp na am bopp bopp lu am solo la bopp lu am solo la ci régler solution bopp boobu nag bu ñu ko waxee oustaz wax na sànq lu am solo mu ne nga fenn ngir sobee sa néegu sëy amul bàkkaar dégg nga ci ndax sarxa boobu di wax ci hadis walay sa walay sa kasabat islaahu bayna naas fenn nekku ci yéwénal ay diggante boo ñëwee ci sarxa bi dañ la andi diggante mu aas ibni jabari radiyallahu taala anhu ak jabaram mu aas Umar ibnul Xattaab daf ko délégué benn jihaad mu dem gars yi màng lu bëri ba ñu màngee lu bëri mu ñëw di séddale di topp hadis boobu ne laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba maa yuhibbu li nafsihi ba fàtte jabaram jabar dina ko màng nga tey fàtte ma ba ma fàttee tey ma ñaan la baat moo tax ñu lay ne soxna yi wallaay bu ngeen liiree saxaabiyaat yi di ngeen mën a mu ñëw soxna yi ña gën yàlla tagg leen ndagam yoon ñoo amoon yenn esprit yu doy waar yi waxuma laa ñii mu aas defaat deuxième fois mangaat fàtte ko dafa ne tëll soxna si ne ko ana sama wàll rek mu aas ne ko Omar moo ma boole ku may garde ndaw si ne ko Omar mu ne waaw mu ne ko changé nga baa Omar juum nga yent bi boole wala ku lay sa garde Babacar fekk ko Omar def ko kon am na loo ware bu ma jógee léegi ci Omar laa jëm jigéen saabi yaa yi ku leen xamal xam ne ñu ñeme dëgg lañu mu aas fëq ay dàllam daw ba ci Omar jaaru sax ci Omar mais ci jabar jala woolu ne ko nag dañ maa menacé te sëy buy tas laay bari moo tax ma waxal Omar lu amul jabar yi ñëw wax ko Omar Omar ñu tëll di reetaan ne ko mu aas dama laa boole ku lay garde mu ne benn alibi bii laa am pour sauver mariage ma def Omar daal di yëkkati lu rëy jox ko ne ko neer ki ma yónni moo déggul li ma wax waaye waxuma ko mu garde la ndax di nga fenaa beneen fen ndax sa jabar xam naa ni ki yóbbu yëpp fekk ma xooleen ku toll ni mu aas ibni Jabal jàkkaarloo Hajjaaj ibni Yuusuf raykatu nit kooku wax mu tontu kooku ne ko da ngay rey mu ne da ngay kàcc ndax xëy naa ne bisimilah lisi laa yeggul maa ismi seen fil àdduna wala sama wax sama lan jàkkaarloo fi jaaj ibnu yusuf wax li lay rey nga jàkkaarloo sa jabar bi wax lu dul dëgg ndax soobee mariage ndax ñun egg nañ ko solution boobu day dellu si beneen solution bi mooy mbokk toujours xale ku góor na doon borom bopp bu muy gaaw di tontu bu muy gaaw di tontu te bu la dara ëppee doole ci sa néeg même bu fekkee da ngay ne benn mbokk jëlal taxi yaa ngi fekk ma ipota soo ñëwee ma fay def ñun suñu amiru koñ la këram am problème lëj jabaram doomam bu ñu ne Muhammad la dóor doom ji yaay jeeg wujju yaay ji yëpp ñëw di ko ne da ngaa soxla ba mu fi séesee ba tey kay xamoon nañu ne jàmm andiwu na rey suñu seet yéen andi wax bu koy saaga mbokk bu jigéen bi daay takk ay bagaasam ba mu rafet ne bu jëkkër ñëwee mu gaaral ko problème bi su ci mënul dara mu jël bagaasam def waaw caatu yaayu mbokk bi woo mbokk bi ne ko jaaral ci oustaz Ousmane nga gisee moom wax ko problème bi mais ba ñu ñëwee keroog mbokk ay boisson dibee façon fruit bi ñu jël nañ ko ma ne ko yaa fii bu ñu eggee inna alhamdulillah boo ko waxee ba noppi nee ko boo doon ndox suuf dëgg dina jam sax daf may naqari su ma sañoon lool bu jóg daal sama kaw waaye yaay ak wujju yaay miiru feer lañu boo ko mbëkkee sa yóbbu génn waaye doo dégg ci man lu ñaaw mais ba ñu egsee pour te di nga xam ne jigéen ñi bu ñu meree ñu ngi façon tàng yi nga xam ne ba ñu egsee mu indi reer bi ñu reer waxul dara man tamit may yëngal ma ne ko defaral defaral ñu ataaya mu ne oustaz xanaa bi yaa fi doon cere ziyaare ginnaaw gee ma ne ko waa tey daruri la tey daruri la xoolal li ma doon def pour naa écarté wu rek ma insister mu defal lëwal ñu naan rek mu ne xam ngeen lu xew tey ñu ne ko ah ñun de duñu xam xay mu expliqué cas bi ba mu egg mbokk bi ne ma oustaz ma ne ko déet kenn du jiitu nit ci këram yow yaa war a wax rek wax naa mbokk bi mu wax mbokk bi daal di wax ba eggal mu ne ko lii de laa doon déglu soo waxoon leneen lu dul lii nga may ma baat ma def mbokk bi génnee dibi beeg boo soobeeg ñu wañ toogee ba ci kanam ma ne ko mbokk mën naa wax mu ne bisimilah ma ne ko mbokk mu ne ah ma ne ko sëy mu ne ah ma ne ko da ngaa toll ci jamono yi joxe sam goj bis dana ñëw nga soxla goj ku taabit ceeb soxla borom goj tey suñu yaay ñoo soxla suñuy goj waaye ëllëg ñun ñoo soxla suñuy goju doom te rek waaye bu ñu lebal suñuy yaay li nga xam ne bu ëllëgee suñuy doom bu ñu ko fayee ñu nga nii nga muñalee tey maire yi yàlla na la yàlla def boole ay goro yu yu lay mujjee ñëw li bu ëllëgee yëkkati 10 000 jox ko mbokk bi jigéen di xëy wecceeku ma ne ko da ngay jël ñaari mairie ku ci nekk boo xëyee nga nuyoo ko 2000 ne ko tuubal naa ne dootuma door a ci seen sët. mais ba mu xëyee di tuubal maire yi maire yi di ñoo jóg na ko doo ñu lakk de ñun ñu saaga la ba ñu tuubal ñun kay ñoo lay tuubal jàmm na ñooy jeex na kon yooyu solution mu ngoog benn ngoog beneen bi mooy li may gis souvent mbokk yi di ñoo manqué dundal seen i néegi seen mbokk yi ma gis naa seen goro ak bu ñuy céetal macha allah jamono yooyu Abdullah ibnu Mubarak moom fu ñu tourné soxna ak seen goro waaye soxna si bu commencé am ay doom rek pour ànd ak moom ci yenn day mel ni daal léegi daal mère na la féete woo doom yi doo ànd ak moom loolu problème la loolu problème la dee leen ànd ak soxna yi dee leen génn ak ñoom man fi ma jóge sori na kon ngeen ma invité mais maa ngi ànd ak sama soxna ñëw te ku ku mag ci samay jabar laa àndaale kay kay ne bébé bi sax laa bàyyi kër ga andi ku mag ki lu tax mooy toujours di ñuy juum ci fondement mooy maanaam ñun bu ñu amee miir rek toj fondement aawa nag mooy fondement balaa nga am kenn moom nga amoon ku la njëkk na bàyyi moo la ko jural ku la njëkk a woon guddik ceeb suukaram ku la ko njëkk a woon mooy aawa kon keneen koo am toxtal ko ci ginnaawam lii mooy wax ñu bëri ci ñun nag ñuy folli waate ndax Ibn Saïd Ibn Abdurrahman as-Saï wax na ci benn solution nee na tanbihun ab junjë ngi nii di ko jëmale ci ñenn ci nit ñi bu am na ci ñi nga xam ne bu fekkentee ne takk nañu ñaareel dañuy màbb jëfu aawa ak ay àndam yu rafet léeg-léeg suñu gars yi nga dajeeg ñoom ñu takk ñaareel dégg nga ci gars yi ne la yaa xii macha allah saahibul masna waaw nu mu mel nga ne ko xaw a dee maa ngi soog a dund subhanallah moo tax man bañ ma nee jaax di ma ne yaa xii kay fa ma ne ko daf ma cee fekkoona man dama musa naaj sama aaw daf ma naaj day ñëw rek participer bu ma kenn indi problème te lii ku dugg sama kër ku ko fa wax naa la génne ci biti mu leer parce que am na benn ceet bu amoon suñu kon ceet bu reetaanloo mbokk bi sëy si gars yi ñëw foofu di waxtaan si di naan ataaya toog fa di ko ne yaa xii seet bu bees nga nag waaye xalaatal mas naa jabar ji moo doon ataaya ci ginnaaw réer jabar jël baraade beeg kaas yeeg suukar beeg war nga sotti ci siwo bi jabar jëkkër yéenu di ko ne fulawal bi toll mu ne ko nañ jóg ñibbi ginnaaw ngee kenn du ko ziar man du ma ataaya ay góor ñu may fexel wujj ñoo ko toon ji li kulli makaarin maqal seet bu bees tàq jadit yéen ngeen ñëw subhanallah yooyu problème la beneen bi mbokk beneen bi mbokk mooy mbokk suñu sëy yi dafa rab suñu sëy yi dundul suñu sëy yi dafa manqué agréable moment duñ ko passé ak suñuy jabar dañoo am problème agréable moment te li ma wax sam-sam barkaati démb semaine bee pass si muskilaatu zawja naa ko fi wax de mbokk yi yéen a ngi nii da ngeen di am ay match dimanche matin léegi wut leen deux effectifs 20 heures plus 20 égale 40 20 heures yi ñooy dem bii compétition yi vingt jours des dimanche ca kër ga loqati soxna yi seen baye yeeg seen ruquneeg yi defar kër gi jàppale leen ci yor doom dala dàqul sa jëkkër ba su dimanche ana alaaji mi ngi ci biir yoral ma Muhammad man maa ngi taal léeg-léeg sax nga jël cee bataan nañu wut ñaari effectif dimanche ñëpp mbabbeekoo ndoo dem te yéen dimanche dong ngeen am loolu ma ne la man Ousmane dama koo jar personnellement dama koo jàpp ñaari effectif faaw ñu wut ko beneen bi mooy mbokk tay la samedi suba liggéeyu ma dimanche la man sek samedi man dama doxantu ci tëli ba ba ñu may ne oustaz moderne damay jël sama jabar reer nañ ba pare ñu topp tëli bi di dox di waxtaan di yeey suñu pom mbaa di naan suñu zi ma koy fàttali nag ba ma lay njëkk a gis waa tagal ba ma lay njëkk a gis nga may sàcc bët est-ce que yow njëkkoo ma woon miir sax yooyu laa lay fàttali yooyu alors subhanallah yooyu day am lu muy def yaa fii mbir mi faaw ñu jël ay xoolal ay sotal la ndox di ko arrosé muy neex mbokk dimanche lañu am léeg-léeg nañu ndékkandoog soxna si mu dagg guuxal la nga dagg sexal ko dégg nga ci gars yi diñ koo def ba bu soxna si toggee du ñu ne neex na man léeg-léeg nga ne ma man benn sama jabar côté robinet xaw ma fan laa ko romb may ne nu añ bi def ma ne ko tas na guerre laa la wax waaye jëloo ko waaye biisaat ko suba rek loolu laa koy wax lu ma ciy rus léeg-léeg ma ñëw fekk la nga tolu ba jekk tay baasu ma xool góos droit doom gisul jabaat gisul ma ne ko tàngati nga nga ne ma waaye looy wax nii ma ne la ma ne bu ma xañ julli julli gee bi bul tax ma jamu de maa ngi dem jàkka ñëwee jamu timis ak génne yooyu alors la chaque yi may wax nag boo ko buree billahi wallahi wa rabbil kaaba lii daf cee bokk lu ñuy ne yoggu yoggooral mel ni suñuy sëy ñun man danaa dagg samay daal dox wax ba am jabar du ma ñàkk xoolal man loolu sama bëggeel man dama ko nëbb sama yaay sax nag mais yaay sax sama yaay moo may kobos ni ma bul béré say jabaat ak ngay xool ma ne ko waaye nañ wuti ku ñu béré sama yoon daf cee nekk léegi-léeg mag kaf ak yow ba ñëpp ne kii day sa waay kii da ngay waaw ah parce que sëy yi mbokk yi loolu moo ko manqué wallahi lazi la ilaha illa hu sëy yi loolu daf ko manqué loolu daf ko manqué man yeesaa gis nga gis nga sama yow ma ne tëll sax ci buntu kër gi waaye dama damay commencé reetaan ne la ni ma la nammee nga ne foo nekkoon ma ne ah ibaadu yee ma jàppoon rek di ma waxtaan loo waaye xam nga ne yow sori la du jàmm dégg nga ci te mbokk yi soxna yi am nañu solo ci kër yi am nañu solo ci kër yi gis nga am na benn mbokk jamono jee daf ma woo di fasa jabaram ma nasiha ko ne ko yaaxi mu ne ah ma ne ko doo gis lent bi gisul jàppal mu bañ mais xama mbokk bi jëlaat na jabaram te jooy na ba sonn nee na benn bés dafa gis jabar ji ànd ak ñetti doom yi fab kii boot kii jàpp ci loxo kii ndax nee na jabar ji nee na bu añee seen kër deux heures rek papam ne ko yow kañ la waa ji gi jël ci xale yi nag mbaa mu leen di indil dund soxna si léegi day def deux heures seen kër deux heures kër ni jaan maa ko njëkk a gis ma ne ko mbokk mu ne ah ma ne ko demal fële côté terminus nga taxaw fa xool Sofia mais kon ba ko mbokk bi gisee muy jéggi tali xaw tuuti oto bi laal ko ndax da doon xëcc doom ji doom ji jiyee ko dox mbokk bi moo ñëw di ko fabal xale yi mu jéggi mbokk bi taxaw rongo ñi di tuuru soxna si ne ko waa lan la mu ne comme daal yedd bi moo tagul billaahi damaa bëggoon rek Cheikh Ousmane ñëw jël la yóbbu la kër jël naa ko wa delloo mu ne ma yaa xi gis naa ko ma ne ko mbokk mu ne ah ma ne ko gis nga baatum passé buñ koy gaaw a wax gis nga ni docteur yi teeyee ci dagg tànk mbala loxo donte ku ñu dagg sa tànk rek moo gën ci yow ndax dagg tànk gën dee waaye balaa ñu koo dagg dañ koy xool xoolaat kon fase nañ koy xoolaat beneen bi mooy mbokk mariage nay am assemblée générale ak conseil de famille xam nga gaañ conseil de ministre lañu wax dañuy def conseil de famille man duma toog deux mois lu dul woow ma sama jabar mu toog ma ne ko wallaay maa ngi lay waatloo di waat bu fekkee li ma lay laaj nëbb nga ci dara yàlla na la ko yàlla àtte est-ce que ba ma la takkee ak léegi ba ngay bees ak léegi ba nga yoree ay doom ñu wër la mbaar awma changement mu ne man kay yow laay laaj ndax awma changement ndax yow say kaf sax day tere fe say changement feeñ ndax say kaf yu metti waaw te gis nga wallaay benn mbokk benn mbokk suñu koñ fase na jabaram ba mu amee jabar ji problème laa lay wax jabar ji dekone mu ne ko wàcc naa la jabar ji ne ko wàcc jabar ji dem seen kër ci kaf yi la laqatu comme kafkat la ba mu ñëwee ñuy jël ci soxna si papa ji ne ko waaw yow lu xew mu ne ko man damaa bëri kaf rek papa su ma neexoon di fëññëral sama kanam xamal ko ne jëkkëram la mais bëri kaf rek mu may jàndi waaye yow waa kër gi saaf saafee so jógal topp ko amoo teggin yar ko moo tax góor moo tax benn bés benn seex nee na ma bëri leen kaf su problème amee ngeen làqatu ci kaf baax na de mbokk yu bëri nag duñu kaf duñu foo duñu ree dégg nga ci beneen bi mooy soxna yi nasiha bi ñu ngi koy jëmale ci ñoom soxna yu bëri léeg-léeg seeni problème ci seeni yaayu jëkkër lay jógee loolu lu ruslu la ndax yàlla moo ne wa wassayna al insana bi waliday husna yent bi ne nazarul waladi ila waliday hubban lahuma ibadatun bëtu maa la bëgg bu doom di xool ñaari way juróom jaamu yàlla la bokk waaw bëtu maa la jéppi bu doom bala jabaru doom di xool ndeyam kon laa sakka ci mooy yàlla lay dugg kon soxna yi nañu góorgóorlu ci seeni yaayu jëkkër ndax damay ne kala seefe ku seefe kala seefe kooku dalaa seefe ñaari yoon ku seefe sa jëkkër mooy sa seef ñaari yoon kon yaay jëkkër jigéen bu bëggee seen gudd fan na ko moytu jigéen nag buy see si kër na mel ni ginaar bu boobu ciy nenam buñ leen cuuji bant na kook-kook bi bëri waaye bul jóg boxa say neen boo ko fay ba ñu koy toj bu jigéen abandonné néegam ñu maltraité say doom te sëy boo gis am na ñetti noonu ka yéenewul sa waay jëkkër jabar ak ku la yéenewul jëkkër ak ku contre diggante bi ak ku géeju woon keneen toog sa place ku dul yow ak ku géeju woon keneen toog place sa jëkkër ku dul moom kon yii noonu tekk moo lay tegtal yoon ba waaye parax parax moo lay dugal ci rambax boo dul jënti ku ba yamal yam kon tekk moo lay tegtal yoon soxna yi gis nañ ci soxna yu góorgóorlu wax dëgg yàlla ñun gis nañ ci benn soxna bi xam ne day muur kanam goro bu góor bi muur kanam rek la bay fu mu jàppee ba pare rek mu ne ko tooyal nga pizza bi yëpp avec ça ngay ni ibaadu salte ba dee papa baal ma mu ne ko toujours baal ma mais ndaw si ni mu koy fayee papa ajjuma mi ngi jóg si de génneel sa yére booy xëy ma fóotal la papa bi fóote ba pare ndaw si jënd parfum libérance teg ci ne papa dee ko ngànnaayoo nag oto yi dafa doy waar de léeg-léeg ñu tux xër la papa bi toog ay 20 jours xaw ma 2 mois waxul ndaw si dangaa salte ndaw si ne jëkkër ji su ma jàppee ba pare rek ne ma dangaa salte waaye bu jëkkër ji da nga sax paa bi dafa teg ci piniat bi ne ko yaa tay tooyalal fu la neex ba nga waxati ko ko paa bi ñetteelam am doom mu tuddee ko ndaw si ba pare daal di ko koy may ne ko féetewoo ko yàqu muur ko comme ni ngay muuroo ndaw si lu ko may li muñ kon soxna yaayu jëkkër dee ko moytu suñu koñ benn mbokk ba muy takk jabar yaa ji dafa ne kuy tënj bu duggee ci kër gi bu ma fóota bu ma nuyu bu toggee du ma lekk papa ji ne takk leen indi rek ndaw si ba mu ñëwee ñu formé ko ñun wax ko suñuy gis-gis ne ko na nga defee noonu ndaw si daal ba mu jëlee njël maire bi premier jour yi lekkul waaye ba mu commencé lekk ndaw si di ko ne yaay xanaa suppu kànji xëroo ci mu ne waaye adu marché neexul mu ne ko waxal rek loo bëgg mais bu ñu toggee lu wex kaani ci kër gi ndaw si day dem jëndi laaxu na tëri jox maire bi mu yor ndaw si day génnee ay 100 poème raxas bopp meer bi diw ko di ko fuddan di ko létt nag magu grand bi nag magu mbokk bi am ci problème ak jabaram ñu dem ñu ñuy santas ay 40 mille ñu ñëw ñu ne ah dëgër na de ndaw si nee na du ñëw maire bi ne baax dama laa soxla woon oustaz ma ñëw mu ne wutal leen ko ak ebaado nag ah maire lii de moom soppaliku na bañam séeréer ak lem ba xamu ko wan ne ko maa la bañ waaye bu mu ci dut baaraam mos kenn waxu ko ko ñaari yoon ma ne ko lii nag mooy mbir mi kon soxna si diñ kaa bañoon commencement bëgg ko wa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fii xayran kasira mbaa ñu ne wa isa allazi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamim walaa yulaqaahaa nag illa allazina sabaru sart bi mooy mun walaa yulaqaa illa zu hazin azim ku ko yàlla jox jox na la cër bu rëy kon soxna yi loolu diñ koy kii beneen soxna si moog jëkkëram la soxna si ndeysaan mi ngeeg ña ñaari wujj dafa mus a toog mu ne jëkkër ji takkal ñett ak man muy ñeent li ngay yëg ci man doo ko yëg li ma lay soññee ci jaamu yàlla kenn du la ko soññee jëkkër ji takk takk ba muy ñett jëkkër ji nee na néegam laay tëdd ba guddi mu tuwaale tu ma jekk ne ma nii tang ma aajoo ma ne ko déedéet mu ne jógal ñu xëyaam ñaan yàlla wàññi nattu yi nee na moom rek laay xëy suusal lay jaay mu làmb 2000 am ne ma bu la añ fekkee nga jéem a añ bokk comme yow da ngay yendu atelier nee na daaw tabaski daaw maa ci teg sama bët ñaari cuubu gañi laa lañ ko may mu jox ñetteel bi ak ñaareel bi jëkkër ji ne ko looy sol mu ne ko man li ma sol dootuñu ko solati bàyyi leen rek ñu sol bu ñuy ziyaara ji ñu jox ma xale yi ma uuf leen man meer la li ma am ci yow kenn kenn du ko amaat ci yow dama lay jàppale rek xoolal yi jigéen fii Sénégal la dëkk di lekk ci yabooy bi xoolal di naan ci ndox mi di naan ci lëwal beeg deuxième moo tax ma ne yéen waa Pikine bu fekkee seen i pneu daa crevé yàlla leen yàlla dimbali waaye am na fu ay pneu crevé wul waaw beneen soxna si dafa wàcc jëkkër ji dafa wàcc mu ne ko reer mu ne ko bëgguma mu waxaat ko ko mu nekk boo ma koy waxati ngay génn kër gi jabar ji dem jooy ba sonn jàpp julli ñaari rakk ne yàlla yàlla ma woon sama wér meru jëkkër ma génnee ko ci daal di ñëw takk kaale bi ci ndigg bi ne la wax ma koo joteel ma porte ko penante ma ko boo reerul du ma reer man ku ma tere reer ma yóbbu la police wax ma kan la rek te nga seetaan jëkkër ji daal di koy jógloo ko ne ko waaye kaay waay xam nga ne sama patron laa joteeloon indi reer bi ma reer bu doon ñi ma xam la lan lañ lay wax ci prix boo ma nee bul ndekki yow yow mënoo waxuma la reer waaye bul ndekki boo santeel sant ba problème bi gën a jóg kon soxna ni ko yàlla bindee amul sikkim yaram bi ñagasul buy wax mel ni xale bu fer kon kooku ñagas-ñagas jigu ko te ku néew doole li muy laaj ci ay droit am na ko laaj laaju nit ku néew doole waaye jigéen ñu bëree bëri bëri daanaka tey di ñoo takk tubay taxaw te loolu lu ñuy ñox lu jig mbott ci njox jigu ci jinax mbott mun naa nuur ne nu xet waaye jinax bu nuuroo nu ximu dégg nga ci beneen bi vraiment mooy mbokk yi souvent comme ni ko oustaz waxee histoire mun ta ñàkk ci ñaari way dencante foro ko ko réeroo ferñeent ak juyoo mun ta ñàkk ci ñaari way dencante moo tax sayd ibn abdurahman ci sarxa boobu mooy an nikaaha mu ne al ixtilaaf bayna zawjiya haza amrun gayra mustagrib mu ne foroxo ko réeroo buy gongee ko diggante ñaari way dencante jombul ñaari way dencante jombul fenn nekkul li nutum rank waaye nag defet mooy bañ koo amal solution solution nag léeg-léeg comme ni ma wax léegi soxna si jël na médicament takk kaalam ci ndiggam neexal jëkkëram jëkkëram ñëw waaye du góor yëpp a neex yomba neexal te te góor nag nga neex a neexal ndax yàlla nee na wa in ataatumuhunna falaa tabghuuna alayhinna sabila su fekkee nangu nañoo wàcc bul guddal ab jël la daloon waaja gàddaayoon dal la waaja gàddaayoon soxnaam di lal mer gàddu ca lal ba soxna si guddi gu jot rek mu gën a tàng tëdd ci lal bi sa waay jékki rek fekk ko ci kaw lal bi mu ne ko nijaay lii lal la mu ne ko tëre di rek rek ah tëre di nga mos kon wax dëgg yàlla bu fekkee nangu naa wàcc wàccal nangu naa wàcc wàccal moo tax man mbokk yëpp dama leen koy wax waa Pikine ak oustaz ak ku ñëw sama kër na nga dénk soxna yi nga ne leen ah comprendre leen Cheikh Ousmane wax dëgg yàlla ci problème mbokk yi rek lay doon ndax léeg-léeg ma bëgg a génn ñu poñe ma ci ruq laa lay wax ne ma tay doo fi génn yow say génn ngi bëgg a ëpp bu ngeen ñëwee day wax grand bi nag ñun ñoo koy génnee soxna yi dee leen ko comprendre ñu ngi jéggalu de waaye di ma seetaan rek ne soxna oustaz kenn du ko daawa déedéet ñoo gën a soxla léegi-léegi ñu koññi ci ruq yi ba mbaxane yi demee boor man benn jour fee mbokk maa dañëw oustaz wéy nga la sa mbaxane bi dafa wéy ma ne ko ah boo demee baaraam soxna yi la de waaw kon mi ngi noonu kon mbir mi mun ta ñàkk lem nag neex na waaye ku ko bëgg muñ màtt yamb mbaa nga ñemee wokkatu wokkatu mooy lamb poos benn oyofu ci nag benn oyofu ci waaw bulet neex na lool waaye bu dul woon kaani ga yebooy bu dul woon yax yi baadoola du ci jox kon soxna yi ku bëgg jonjoog ñoom na nga muñ seen yu sew lii mooy wax bi mbokk yëpp defaat seen bopp tarwi mbokk yi am na ci ñam di ñoo tàng man xissa mbokk yi nga xam ne di ñoo daanu ci mariage def ci lu ñaaw du ma ko nettali loolu ëpp naa nettali mais tàngoor moom man bañ naa ko ba damaa am bureau kee toog def kaala bu ruus bi ci baat bi xam na ko am naa bureau islam bi nga xam ne maa ngi fay recevoir ay mbokk di aaraat seen sëy mais wallahi mun naa ne man sama sama agent sama sama sama blog na fees na deel sans sëy yëpp 90 yi tàngooru jëkkër ji jigéen ñi nag moom boo deelee 190 yi mooy maanaam dëgër bopp soxna yi am na ci ñi nga kenn ki soxna si dafa toog xulli ma ne ma xoolal na nga ragal yàlla te nga àtt dëgg yow ma ne ko incha allah daa dina fax waaw saa gis nga sa waay soxna si gis nga fi ñu toll maa ngi moom li ñuy wootante téléphone mais ne oustaz bëccëgu keroog dama koy rëccu ma ne ko non garaaw yooyu borom jabar laa mais lu raw loolu sax maa ngi koy gis yow da ngay amul problème dégg nga ci kon mbokk yi nañu andiwaat seen bopp mbokk yi nañu wàccaat sur terre wàccee seen bopp mbokk yu bëri di ñoo xaw a rëy comme ni ko oustaz waxee ba mbokk yu bëri nag di ñoo complexé gis nga kersa bu bëri néegu sëy laaju ko néegu sëy laaju ko gis nga am na benn mbokk wallahi moom jabaram xoolal juróom benn weer jabar ji sëy si moom jabar ji du ko gis yaramam du gis yaramu jabar ji mu ne ma wala def ma rus ma rus ko ma ne ko xoolal mu ne ma ne ko bu ma foltoo damaa bëgg bu la xoolal bu tënjatoo sarvet di diw mu ne ma ne ko nee ko bi feet waaye ba mu ko ne bifeet nee na fa la kersa bi yam ndaw si ne ko ne ni nga ma ne bifeet daal la ko ne bifeet mu ne booba am ndokk loolu laa ci bëgg jeex na parce que sëy dafa am yu ruqe yi nga xam ne ñun dañ ñu koy gaaral ay ree da lay jàpp am na ci benn problème bu néegu sëy bi nga xam ne xoolal xale bu jigéen bi ndar la jóge sëy si xam nga ñoom ni ñu mel dañuy jonge ba day doy waar dégg nga ci mais lan lay wax jëkkër ji bu bët setee xoolal bu ñu defee ni ñuy def bët set day ne nii jëkkër ji mu xool ko kenn du yëg ci kër gi naka démb laa la wax waaye jëkkër ji di ko ne gis nga ba ma ko waxandee xoolal waaye yow loolu yonent bi nee na xoolal ku ko nettali waaye ndaw si ne ko xoolal waxuma la ñu nettali ko maa ngi yow la mu ne ko loolu du ma ci waxtaan waaye yow di jëpp ba ba mu décidé laa def ne ko bu ko jabar ji waxatee mu bàyyi rek ñu wool ma ma ñëw mu ne may oustaz vraiment di di kii di wër autour de pot quoi soxna si ne ko xoolal bu la ko waxul rek ma wax la ko oustaz ma ne ko wax ma ko mu ne waaye di ñuy def li ñuy def bët set ma ne ko naka démb muy bëgg a mer ma ne ko waaw naka démb lu ci nekk waaye oustaz yow bu la sa jabar ne naka démb la ko wax ma ne ko saf na sàpp nañ ko defaat tey mu ne ma waaye oustaz loolu rek lu ciy dalil ma ne ko lu ciy dalil mooy nit ñëw ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam sama jabar du ma gis du ma ko gis yent bi ne ko maa ngi yow ku gën mu ne ko yow mu ne ko kii damay xool di ñuy ànd di sangu nee nañu waa ji waay yow tubay bi ci buntu kër ga la ko summi dafa yegg rek yëkkati xaftaan bi ci jabar jabaray saaba yi la mais yooyu ay ruq leen buñ ko raxasul ba mu set problème yi di fi jóg problème yi di fi jóg beneen bi mooy dégg nga ci yooyu il faut mu am il faut mu am loolu mënut a ñàkk de mënut a ñàkk beneen bi mooy mbokk yu góor yi bu ñu rus a jël ay adabu zifaaf mbaa ay niqaa bayna zawjayni bu ibnu hajar al asqalaani jàngi ko soxna yi bu ñu rusa am almaratul muslima ma laha wa ma alayha fi mizan al islam am ko thème de formation ñaari weer mbala ñett mu jeex loolu mu ta ñàkk ndax dafa am li nga xam ne xoolal sànq ba may añ benn kër mbokk xam naa ne soosu bu la di xonk yooyu ñu service ci ceeb bi loolu da lay jox appétit mais am na góor yu soxna yi def ci guddi loolu da lay jox góor loolu da lay fitnaal te góor du ñoo bëgg 7 jours jabaram di ko fitnaal nag ko doy bu bëgg tubay ak mbaxan ak dal loolu la ñu bëgg ci jabar ndax li taxoon ñu ne soxna mooy maanaam bu soxna duggee ci kër gi feebaru célibataire jot fa sa bakkan set wicc nga xëy di leer di leer xat loolu la ñu bëgg mais bu jabar du sëy si ngeen joggooral mel ni ñaari petit labbe labbelu yooyu yooyu alors amul dafa xewi yooyu dafa xewi te yi fi yëpp jógu fi du baax yooyu daf fi war a jóg daf fi war a puus lu ma taraxas la mu set am na mbokk yu bëri nag dañuy kii boom kii kii tartarlu mais li ibaada la iba jonjoo bii xoolal yàlla moo ko wax fal ana basiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum loolu alors mun ta ñàkk loolu mun ta ñàkk loolu di wàcc di dégg borom baat bu sew di la nuyu nga dugg ci loxo yi nooy tege sa loxo xaw laa tàpp nga tàpp ko xool ko waaye muy tàkk sa kanam nga xam ne lii yow rek yaa ko jagoo yow rek yaa koy xool keneen bokkul jaaro yu rafet yaag ceq yaag yaram bu lis ba ak waay létt yu sew yu rafet xaj yu leer nañ loolu alors am na lu muy def ci dund alors di taskunu ilayha li mun ta ñàkk lii wax naa ko fii ci taabal bii dul benn fii def ma ko waxtaan tey defaatuma ko fi démb fii def naa ko waxtaan ba tàyyi yii il faut ñu raxas ko di ànd ak soxna yi waaw di ko jeex importance et puis man dama contre mbokk wàcc asalaamaaleykum waaleykum salaam mbokk na ngeen def na naka yi tey alhamdulilah man benn bés mus naa ànd ak sama jabar ziyaara kii mais mu jiitu ma mais ba ma ba ma ko fa fekkee damay jàmm sante ak moom ba kenn di ma ne xanaa bokk leen fi ngeen jóge ma ne ko ñun de nii la ñu nuyoo ñuy jàmm sante nga xool lu ko naqari mbaar oto yi daanu woo ci mbaar amoo jafe-jafe yooyu góor daf ko wax ja war a wax jabaram dégg nga ci beneen bi léeg-léeg sa jabar woo la wuy jil wuy jil mbokk yu bëri sa jabar day woo mbokk ma ñëw waaye wuyu jël sa seef bu la wooyee da ngay wuyu ji ñooy sa seef bu du woon ñoom ngay mbëkk di do tàngana mbaa di leen wax welxat yi bët ku romb nga ne ko bu doon bii dana baax de beneen ñëw nga rek waaye bi gën na kaa baaxati di ñoo tax nga am foofa di saxe kon duñ sa morom jàpp ko fukki loxo boo ko ñàkkee da ngay sàngoo sa doole te du jàmm nag ayuha célibataire yàlla nañu yàlla musal ci li ñuy delloo ci célibataire bu yokkul ka yàlla mu wàññi yokkul ka yàlla mu wàññi lii daal amoon nañu li ñuy gaaral lii la ci solution yi beneen bi mooy mbokk yu góor yi bu ñu rus di wax ak seen i mag bunt bi lu mu complexé tudd ko bunt bi lu mu complexe tudd ko benn pël futa seet ni ma seet ni ma 10 fois ñemewu maa wax li may doyee jabar ji dafa jóge Guinée nekk phase laa rek ku mokkal alxuraan xaafisaatu ndaw si daal bu guddee bu jullee gee rek teg na ko ci xiyaamu lay li wax bu kabaree salaat xayru minan waaw grand bi ñëw di ma ko gaaral di ruus di kii ma ne ko xaal épaule la xam benn nata ma ne ko wax ko ci pël du ñu dégg mais ba ma ko garaa bi gaaralee waaye oustaz léegi loolu loo ma ci ma ne ko xoolal bu kabaratee nee ko bàyyi li ngay def bu kabaree yenu ko teg ko ci lal bi moo kabaram yëpp nga dog julli bi kuñ la may nga dog wooram kay dog julleem dara new ci yëpp naa fi la la mais ba ko grand bi defee 2 3 waaye léegi de grand bi nee na moom day toog fee ndaw si di ko ne e koto di ko woo ma ne ko mu ngoog boo ko defuloon du baax kon yooyu alors yii man wax dëgg yàlla yii waxuma ko fukki mais yii dafa war a leer yii dafa war a leer góor nag da ngay am fulla waaye bul woote jom gu metti bul wootee rëy gis nga koy summeeku yéen ñaar ngeen mel ni ñaari bébé ci kaw lal nga bëgg mu def lu ni bàyyam mënut a nekk soxna si nga xam ne yéen ñi ngi summeeku si mel ni ñaari bébé papa bu fa gee papa ma ñëw yaay xaar ma foofu frère mbokk may ma tuuti kooku nga dellu mu def la ni bàyyam loolu mënut a nekk mbokk yu bëri nag di ñoo bëgg am jabar jabar def leen ni bàyyam loolu mënut a nekk loolu ku ko bëgg wallaahi xoolal door nga sëlla ko ci ëkk mënut a nekk soxna yi kaf beeg ree bi nañ ko ubbi na kër yi neex mbokk togg na lu neex nee ko mbokk subhanallah dama laa wóolu ci maafe ba ma déggee moom ngay togg laa commencé fii ko solo na nga dugg ci néeg bi gauche droite kenn fekkeewul nee ko tànga ti nga waaw yow teg nga ko ci de tey bëgg naa lool waaw mu nga kon yooyu dafa war a am lii daal la ñu amoon doon ko joxe comme solution beneen bi mooy mbokk bu góor bi ak jabar bi na ñuy waxtaan lu bëri lu jëm ci kër gi mbokk bu góor bi tamit na def ndànk ci ay sëram del waxtaan ak ñoom del waxtaan ak sa jabar di waxtaan ak say sœur soxna si tamit na xam ne ki la jox ñeent ak tarance na mu la bëggee nga bëgg ñëpp bëggee la ko loolu mu tamit moom moo lay bëgg ñeneen di xajamal waaye fii ak xajam jógeewul ci moom bu mu la saf lii jigéen ñi lañ koy yabee ñu gën a góorgóorlu cëpp yi waxtaan nay am di nga gis keroog dee gis nga ko waaye man gëmuma ko sax waaye nag et puis surtout mbokk yi oustaz ju ñu ña sànq benn wax mooy nay nay nag damay faral di ne mbokk joxeel mbaa nga wax wax ju neex ñaari ngantal yi sëy bu yëngatu rek moo la yëngal masalan soxna si daf laa ñaan nee la sama xarit day sëy dama ko war a jox 4000 ndax daf ma kaa joxoon nga dajale dajale dajale ba dernier jour 3000 nga am mbaa 2500 ñëwal rek mu tagal la añ rek nga jàpp sa bopp ne ko est-ce que dinaa añ mu ne loolu xew nga ne ko dangaa bàyyi ñëpp rek ma mën nga bëgg mu ne waaw waaw xam nga ne soo ma laajee lu ma amul sama bopp metti boobu ba tey may dugg fu ne dugg naa fa mais 2500 laa am mu ne la ah yow andir rek loolu garaawul neexul waaye ne ko xoolal fekkoo ma koy lebee fekkoo ma nga koy sékk sama yoon newu ci aw ma ko loolu du noonu de du noonu de wàcc na bàyyam wàcc nay càmmiñam yaay léppam bu la laajee jox ko boo amul nga jox wax ko wax ju neex tàggu na la ne day seeti bàjjanam nga ne ko demoo nga wàcc di ko nii mu lay fayee bakkan woo ko ba mu toog nga ne ko waay yow da nga feebar yow daa yaakaaroon naa nit nga waaye doo nit ah lu xew ma tàggu deme dem sama bàjjan nga bañ nga ne ko yow xoolal weer bu sori bi danaa la bàyyi ngay seet sa bàjjan maa bëgg nga muñ weer bi dee ma am lu ma la jox nga def ci wax nga sama goro la yow loolu dafa us loo fekk da nga cee làqatu rek porox ndox tool boo làqatu la rek waaye loolu taxul woon nga bañ loolu su loolu moo tax góor day am bopp dina ko bëggee guddi fan day bëri paxkat koj nañ la di ko taaf nga génne ji géejuwaay gars yi yëpp seen yet taxaw géejuwaay nga génne ji sam-sam góor day bëri feem waaw affaire yi y avait des solutions puis il faut nga am tête mentale la question mentale la léeg-léeg man damay dugg ñu song ma dóor ma ci ruq ba mu kii ma génn dem ci ginnaaw kër ga laa lay wax su may xalaat ba affaire yi ñëw su ma ñëw ma la ko xëppee rek da ngay wàcc waaye yow ma lay wàccee dama lay cëppal wàcce la bàyyi la dana waaye yow yaay sama waaye nag yow xam naa ne lii meloo ko sax ah loolu dafa war a am mais mbokk yu bëri ñoo dëgër ñoo dëgër te dëgër baaxul lii daal moom la lañ xam ni ñu koy waxee lii la parce que mbirum mariage bu ñu ko delloo ci saaba yi te it aussi solution yooyu ak yii du benn ndax univers bi ñuy dund du benn beneen bi mooy mbokk yi góor yi am na nasiha bi may yëkkati mooy na ngeen fonk goro mbokk yi góor yi gàttañu nañ ci goro de garab goo ñëw witt ca xob xooxu màngo dem màcc ko ba mu set ji ko sa kër mu lay saxali màngo boo dee gor fa nga ko wittee woon war nga fay yóbbu kopp ndox weer wu ne de ziyaare goro bu fekkee 2 mois 3 mois doy na ci géej jaar fa bu dee 2000 francs bu dee suukar la bu dee saabu nga bàyyi ko fa ah mbokk sa goro ñëw na sa kër asalaamaaleykum man sama rakk bu góor démb daf ma doon posé question di ma ne yow ki ma fi fekk muy ndékki sa goro la ma ne ko waaw mu ne ma waa sa goro ñëw nga tëdd ci mat la bi njëganaay ci wetam ma ne ko man sama goro sama goro sama yaay la su ma demee sama kër soxna sax man dama wax sama jabar sama yaay laa yaay jabar laa sama yaay aaw ndax sama soxna bee yaayam dundul mais dama koy ne yaay cere laa bëgg mbala omelette mu defaral ma ma lekk sama yaay jabar laa amal affaire mbokk yi goro boo ko séenee taxawal nuyoog moom jàmm sante mbokk bul xeeb donte pièce téeméer la ah yaay yow tax fi nga jëm daa aw sar waaye weer wee sant jaxate rek waaye paas ci boog baara ma wutal la oto waaw eh fu mu jëm yow yow sama yaay ji yooyu dafa war a am solo mbokk yi gàtta ñu leen ci de suñu gémmiñ xel ne nag nañ ko waxtaanee suñu biir wuti ay socc moo gën waa raay beeg caawa di ko waxtaanee ñu ni nee na nañu fonk goro yi mbokk gis nga monde célibataire ku la ci jëlee du sa morom seet wal iyaazu billahi mina célibataire la xayra fi célibataire du gis nga même li koy ñiy labbe labbe lu di woote woo célibataire yàlla nee na fa maar aw xaqari ayatiha sax ndax boobu seen waajo dee ku ko nar a doon rek ngay na mus ngaa tëb fereetam ndax xubbu sahawaati mina nisaa ah loolu moom pikiir bi la bi nga xam ne yàlla moo la ko ne duut munoo koo rëcc fenn tabi ala ci yow nature la day yëngatu ku la fexe nag ba nga am fooy fajee aajo googu sa waay kooku du sa morom kooku boo ko séenee nee ko eh sama seefa ngoog waaw boo mënul fokk mbaxana kooku kay loo ko war a ñaanal comme ni gars yi di ñaanal seen sëriñ yàlla fi yàgg téwér yàlla fi yàgg téwér kon lii mooy wax bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu
aywa jazakumullah xeyr yàlla na yàlla barkeel xam-xam bi comme ni ñu ko doon waxee rek maanaam thème bi li ñu doon seetlu si ñoom maanaam indi nañ ko ba mu ëpp suñu jar bi léegi beneen fànn bi mi ngi jëm ci mbooloo mi képp ku am loo xam ne contribution la wala laaj incha allah kaddu gi mi ngi ci yéen mais balaa ñuy joxe kaddu dañuy wax ne Oustaz Diouf mi ngi si mbooloo mi ñëw na su amee loo xam ne comme contribution la incha allah mu mu joxe ko thème bi ñu fàttali ne mooy crise yi am ci wàllu sëy yi problème yi ak saafara yi
wala alhamdulilah damay wax ne fekkoon ne dafa am dajale ñaari jigéen yi bokk baay wala yi bokk ndey baay kon ñun Cheikh Ousmane war nañ la doon beneen ah.
محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته